suñu borom wa taala moom mi nga xam ne mooy borom kat gi tey borom rafetal gi di seere ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak jaamam la waaye ndawam la yal na ko yàlla xéewal ak ñoñom ak saxaabaam ak ñeneen topp ci ak rafetal li fiyee guddi yi ak bëccëg yi wuutante yàlla leen saa borom defal xéewal ak mucc mbokk yi gannaaw loolu ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla di leen wattandikuloo mooy sunu borom subhanahu wa ak wuuteeg ay ndigalam mbokk jullit yi xam leen ne day azaka mooy ñetteelu ponk ci lislaam di benn ci yi nga xam ne bu doon lislaam am mbaar la man ngaa wax ne mooy ñetteelu keneen yi nga xam ne moo tee lislaam sunu borom yoonal ko ci alal yi ngir mu laamal alal yi waaye mu nekk loo xam ne dafay sellal bakkan waaye mu nekk ndimbal jëm ci ñi nga xam ne dañoo ñàkk suñu borom wax na ci alquran al wax yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne ko jëlal ci seen alal yi ab sadaqa muy azaka azaka yoo xam ne dafay daf leen di laabal waaye daf leen di sellal yonente bi alayhi salatu wasalaam bi nga xamee ne mi ngi yónni Muaaz ibnu Jabal wax ne ko boo demee na leen woo ci yàlla sunu borom subhanahu wa taala mooy nag leen woo ci tawxiid wéetal yàlla buñ la ca wuyoo nga digal leen julli buñ la ca wuyoo nga digal leen ñuy joxe asaka ñu jël nga jël ci seen alal yi ab lim boo xam ne danga koy jëlee ci ñu oomal delloo ko ci ñu ñàkk bokk jullit yi bokk na ci xereñteef gi nga xam ne moo waral sunu boroom wala njariñ yi waral sunu boroom subhanahu wa taala yoonal azaka mooy dafa bëgg fuqaraa yi mooy ñi nga xam ne dañoo ñàkk loola nekk loo xam ne daf leen di fegal ak toroxte waaye fegal leen ñuy wër di laaj waaye seeni aajo ñu mën koo faj loolu bokk na ci jubluwaay yi tax ñu yoonal yooyu mooy azaka dafay laabal bakkan doomu aadama ci bon boni nay ak bëggee ci kuy kiy joxe azaka di génn alalam di ko joxe gëm na ni gëm na lii yàllaa ko ko wërsëgal waaye moo ko sant mu génn ci sos bi joxe ko loola daf koy laabal ci bon boni nay ak bëgg bokk jullit yi bu fekkoon ne ñu yàlla dénk koom-koom ñépp ñi ngi génne asaka ñi leen ko suñu borom subhanahu wa taala santé kon kaw suuf si ku ñàkk dootu fi nekk bokk jullit yi ñi nga xam ne yàlla daf leen dénk alal war nañoo gaaw lool jëm ci fexe ba li nekk ci seenu loos ci ay xaq ndax nañ bàyyi xel ne asaka xaq la joo xam ne yow moomoo dugul ne bu la neexee joxe bu la neexee bañ a joxe waaye xaq jaamur la yoo xam ne yow yaa ko téye suñu borom subhanahu wa taala am lu la ko joxale ko bañ na ko ba sax ñi nga ko war moo leen tuddal boppam kon mbokku jullit gaawal joxe farata ji nga xam ne war na ci sa alal ji ci asaka nga génn ko ndax loolu day boo ko defee yoon bu rëy a rëy la nga lu rëy rëy la ci yow ndax asaka am ak am soloom dafa tax suñu borom daf koo lëkkale julli ndax néewaane ngay jànge ci alquranul karim julli te doo joxe asaka ba ñoom ñaar suñu borom daf leen a lëkkale ci alquranul karim muy farata yoo xam ne dafa bokk ci farata islam yi bokk nekk ponk ci ponk yi ba tax na nay koo joxe dañ koo génn ngir nay loola day dana waral mbugal fii ci adduna balaa ëllëg àllaaxira loo tax sunu borom subhaanahu wa taala wax ne ñi nga xam ne dañuy rënk urus ak xaalis di ko denc duñ ko nangoo joxe da leen sant ci ñu war caa génn ay xàq duñ ko nangu ñooñee day bu ëllëgee alal joojee alal ji day soppeeku nekk sawara woo xam ne sunu borom daf koy jël mbugal ko mooy koy jël di ko paase maanaa di ko passé ci seen i xar kanam ci seen i ak seen i wàll ak seen i gannaaw naan leen lii mooy la ngeen seen bopp mbugal maa ngi nii mos leen lii mooy alal ya xam ne da ngeen koo dencoon ay xaq war ca ngeen bañ koo génne lii lii la soppeeku tey doon mbugal mos ko kon loolu bokk na ci li xam ne day tegtale ne loolu moomoo ko xaq jàmbur la Abu Hurayrata radiyallahu anhu nee na yonente bi sallallahu alayhi wa na képp koo xam ne yàlla jox na ko alal nanguwul jooxe nanguwul a jooxe asaka nee na alal jooju mu tey xàq jaamu yooyu bu ëllëgee suñu borom daf koy soppi mu nekk jaan jaan joo xam ne lu rëy a rëy lay doon ñàngaayu jaan ji àgg na ci jooju sax tooke ji day tax bopp ba du am ngir tooke bi nekk ci moom nga xam ne dañ ko koy defal lu mel ni ak ndomba moom jaan jooju su ko defee mu jàpp wër ko ndomba ci baat bi di mat ci ñaari lex yi naan ko ñun man maay sa alal ja maay koom magaloon denc maay alal ja nga xam ne moom nga rënkoon bañoon caa génn xàq yàlla yi maa nekk nii tey yonent bi dafa jàng aaya bi nga xam ne daf caa def istidlaal borom wax ne bu leen yaakaar ne ñi nga xam ne dañuy nay ci leneen leen yàlla jox ci ngëneelam loolu aw yiw la ci ñoom déedéet du aw yiw ci ñoom waaye loolu musiba la ci ñoom ndax bu ëllëgee loolu suñu borom dana ko soppi comme ni ko yonent bi mu nekk mbugal moo xam ne mooy sababu lañ doon nay nga xam ne bu ëllëgee yomal xiyaam loola day soppeeku nekk mbugal kon mbokk jullit yi jaam bi nga xam ne suma borom daf koo xéewalee xéewal bu fekkee ne sant xéewal suma borom nga ci jooxe ak suñu borom bi nam ko war a jooxee bu mu jàpp ne loola xéewal la waaye bu loola bu ëllëgee mbugal lay doon ak alkane yowmal qiyaama suñu borom soppi loolee nga xam ne jàpp na ne xéewal la mu soppi ko loo xam ne daf koy mbittal di ko doon mu nekk mbugal ba xaw mbokk julli di alquraanul karim dafa considéré kii bañ a génne asaka kooku daf koo ñi nga xam ne ay bokkaalekat lañu suñu borom nee na mbugal day ñeel na ñi nga xam ne dañuy bokkaale ak ñi nga xam ne duñu génne asaka te ñoom ñooy ñi nga xam ne dañoo weddi àllaaxira kon gis nga bokkaalekat yi ak ñi dul joxe asaka bu bu leen waree ci seen alal suñu borom subhanahu wa taala daf leen a lënkale fis na lool ci tegtal yi nga xam ne alquran tegtal la ko ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam asaka waaye di wax ak màggaayam ba nga xam ne sax comme ni ko waxee sànq suñu borom daf ko lëkkaleeg julli nga fekk ci alquran ñu ñetti fukki barab ak ñaar yoo xam ne suñu borom daf cee lëkkale asaka ak julli kon loolu li muy tegtale mooy réyaayu asaka ak jokkaloo gi nga xam ne am na ko diggam ak julli moo tax aboubacarin siddiq radiallahu anhu moom mi nga xam ne moo njëkk wutu yonente bi salallahu alayhi wa sallam keroog bi nga xamee ne yonente bi salallahu alayhi wa na àdduna am ñenn ñu murtat ne ñoom dootuñu joxe azaka daal di def istidlaal ci aaya bi nag suñu la waxoon ñoom dem sa sallam yow yoon bi la waxoon la joxoon ñoom direct na ko jëlal ci seen alal yi comme nekkatu fi nag suñu alal duñ ko jox kenn amu bëgg dañ si jeex ne maa ngi wàcc yàlla ne danaa xeex ak képp koo xam ne da ngaa bëgg a teqali julli ak asaka danaa xeex ak yow ndax asaka xaqi alal la daal di wax ne ab buum rek wala ab jatanka bu ñu daan jox yonente bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ma ko bañee jox danaa xeex ak ñoom nga xam ne loolu bokk na ci li sabab xar bu ridda muy xeex bu métti boo xam ne la ko sababoon mooy lenn ci ñi nga xam ne dañoo murtat génn ci ak ñenn nga xam ne dañoo wéddi tontu bii ni asaka kon la mooy asaka lu islam jox wàccuwaay bu rëy a rëy la mbokku julli kon li wax ci ñun mooy képp koo xam ne asaka war na ko war naa gaaw ci joxe ji ko ci alalam te farlu nag ci a xam lu. li ko wax ci asakam bi lu mu war a génn bu fekkee ne am na lenn lu lu ko ci bu dem leer na ko ba xam lu nekk la koy génnee asaka nag day war ci képp koo xam ne sart ya daje na ci moom sart ya nag ba si dëkk mooy mu doon ab jullit nga doon ab jullit asaka warul ab yéefar ñaareel boo na doon as asaka du war ab jaam ndax ab jaam moom dañ koo moomaane kon moom asaka warul ñetteel ba bala ngay génne asaka asaka yi ngay génne na fekk alal dina mat misaal mooy na àgg ci som boo xam ne asaka dana ca war ndax kat alal ji bu fekkee ne matul nisaab asaka du ci war ko mooy bala ngaa génne asaka na fekk mu mat at bu fekkee ne lu mel ni xaalis la wala wurus su booloo dañ ci sàkkaat waaye bu dee asaka yi mbay moom bis ba nga góobee rek da ngay di génne asaka kon loolu ñu bàyyi ko xel juróomeel bi mooy li ngay génn asaka na nga ko moom moom bu ma sëkk ba mën cee soppaxni ko nu mu la neexee bu fekkoon alal la joo xam ne naan yaa ko moom waaye dafa réer donte man na ni sàmm wala bor la buñ la amee su boobaa la mënoo jaar tasarruf kon loolu asaka lu ci war ba keroog nga cay jot bokk na ci alal yi nga xam ne asaka daf cay war ba ci nekk mooy wurus xaalis comme ne bi suñu borom subhanahu wa taala waxee ci aaya boobu ma jàng buur sa xaalis képp koo xam ne am nga ci som am na som bu fu muy àgg asaka dana ca war ñaareel ba mooy lu jëm ci wàllu mbay walla meññeet yi loolu it asaka daf cay war bu fekkee ne mat na nisaab waaye moom ki nga xam ne day bay saa boo xamee ne mbay ma noppi na rek du ko jëbale at day xool rek ba xam li mu bay mat na nisaab bu ma tey nisaab rek mu génneel ko asaka bokk na ci yooyu ba tey mooy li nga xam ne nit ki daf koy fàgg lu mel ni commerce nga xam ne day gaa ak jënd kooku it ba at mi mat war naa toog xayma marchandise mépp ak li nekk ci loxoom bu fekkee ne mat na nisaab mu génneel ko asaka kon ñeenteel ba yi nga xam ne dañ koy génneel suuf si ñu koy wax mbell euh, bu fekkee ne mbellit ma lu mel ni xaalis la wala wus asaka dana ca war bu dee yeneen yi nag moom borom xam-xam yi nee nañ asaka du waaye nag boo ko génnee suuf si bu fekkee ne xayma nga ko bu mat nisaab sopp nañ nga génn ca dara jox ko masaakin yi wala bu fekkee ne lu mel ni rikaas rikaas euh, loolu jaahili yi ñoo ko daan def mooy dañ daan denc denc boo xam ne dañ ko daan suul ci suuf si mu yàgg fi lool ku yàlla dogal nga yem ci denc booba boo ko génnee ci suuf si loolu duñ ca sàcc duñ ca duñ ko sàkk nii sàkk saa boo dajeeg moom rek boo ko génnee ci suuf si muy ay alal su boobaa ca saa sa koy xaaj juróomi xaaj juróomeelu xaaj ba nga joxe ko azaka euh, borom xam ne sax dañ koy yóbbu ca baytu maal waaye comme baytu maal amut euh, l'islam koy jox rek fuqaraa yi ak masaakin yi donc ñu ngi azaka am na ñoo ko war a jox ñoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala bu leen tuddal boppam lu jaadu nag nga dem jox ko ñu bokkut ak ñii yàlla tudd ci alquranul karim ka ci njëkk mooy alfuqara mooy mooy ñi nga xam ne am nañ naam waaye dañ am doyu leen loolu borom mooy waxee ka ca tege mooy almasaakin mooy ñi nga xam ne naa am bala ñoo ndékki wala ñu am dañoo génn wuti ko ñooñu ñi nga xam ne ñoo ko yaayee ci lañ bokk ak ñi nga xam ne ñoo liggéey ci asaka ñu nga xam ne ñooy dem ndax bu njëkkoon l'islam euh, bi nga xamee ne mooy gouverner asaka yi dafa am ñun ñoo ñun ñoo xam ne dañ leen a euh, taayin dañ leen a nommé woon spécial bi dem di jëli asaka yi ñoo ne asaka yi ñu jox leen ci loolu bokk na ci yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala yoon na waaye ki nga xam ne ab yéefar la duggagul ci lislaam waaye ñu gis ko mu jéng jëm ci lislaam kooku it borom xam-xam ne ma des na ko jox asaka ñenn ñi ne déedéet mooy ki dugg ci lislaam ba pare ngir ñu bëgg koo dëgëral kooku mën nañ ko jox asaka ak jaam jaam boo xam ne dafa nekk ci rot ab sangam rawatina jaam boo xam ne dafa bëgg ab sangam goreel fa sangam moom koy laaj ak koo xam ne eh, dafay amee bor te bor ba ba mu koy amee amuñu ko ngir caaxaan wala foog daf ko amee def ko fu jaar kooku bu demee ba bor ba sëkkatal ko kooku it lislaam nee ñu génn ca azaka ji jox ak koo xam ne dafa jihaat ci yoonu yàlla koo xam ne dafay jihaat ci yàlla borom xam ko ne mooy képp koo xam ne day xeex yàlla ñenn ñi yaakaar ko ne mën naa dem ba ci tabax yi jàngukaay ak i daara ak i jàkk ba ci bënn ay teen yooyu yëpp mën a jàll euh, bi nga xam ne moo ko euh, juróom-ñetteel rek mooy ibnu sabi mooy tukkikat boo xam ne daa tukki ba ca yoon wa yàlla dogal ab yóbbalam jeex donte fa mu jëm am na fa àll waaye fii mu toll noonu fii mu toll noonu toll na ci ay situation kooku yi nee na ñu jox ko ci asaka kon juróom-ñett ñii la suñu borom subhanahu wa taala tudd ci aaya bi ne nañ leen jox asaka kon asaka doonu la nit ci bu ko génnee mooy xool ku ko neex bu jox ko ko waaye daf koo war a joxe fa ko yàlla joxe lu ko loolu ñu bàyyi ko xel asaka am na ay teggin ñoo xam ne kiy génne asaka war naa sàmmanteeg moom ni ko sëriñ Tuubaa radiyallahu waxee ci tasawudu siraar ne asaka am na ñetti teggin yoo xam ne kiy génne asaka war na koy bàyyi xel ba ci dëkk mooy asaka ji na ko joxe ci sa kayu bakkan mooy na ko joxe ci xol bu sedd bul ko joxe ngir ñàkk pexe bul ko joxe di ci am waaye na ko joxe te fekk sa xol sedd na ci ñaareel ba li ngay joxe asaka yi na nekk la digg doomu ci alal ja bul seet la gën a baax nga joxe ko waaye bul seet la gën a yées nga joxe xam ne noppi na nga xool la gën a ñaaw ca mbay ma nga génn ci asaka joxe ko loolu yu tàmmuñu waaye seetal la ca digg ba rek nga joxe ko Muaad ibnu Jabal ñu ne yonent bi sallallahu alayhi Yaman sax daf ne ko na nga wattandiku seen alal yi gën a baax nga di ko jël waaye